please. Say something. Hi YouTube, uh, my name is Mezahate and uh, welcome to our channel. Today I am actually with my husband, um, Jibril. You wanna introduce yourself? Oh, you can introduce me. <laughs> okay, well this is my husband, Jibril. So we're doing a language challenge. Yes. <laughs> and what, what language? Wolof. Wolof. For those of you who don't know, Wolof is the national language in Senegal. And okay, how are we doing this? So we're gonna discuss in Wolof. Okay. So when you say discuss, like discuss what? meaning that like I'm gonna ask you a question and then you respond to me. Everything's gonna be in Wolof. Ooh, ooh. All right, let's do this. Mm-hmm. <laughs> let's go. <laughs> Uh, ah, ah, ba yow dégg nga wolof. ah dégg tuuti. waaw baax na yow dégg nga wolof aw wolof ak lan nga dégg. ak langue dégg amariña. just a little bit to show people that you know how to speak amariña.

um, the food is ready. Uh, the food is ready? Uh-huh. uh why? Ha. Uh, hamua. The food is ready? Mm, skip. Oh, okay. How do you say come, uh, drink? Kainan. Come eat. Kailek. Come dance. Kay fecc come take shower kay jël sangu mm-hmm. you didn't think I knew cook kay togg come watch TV kay seetaan télé come sit kay togg kay togg kaay toog toog. toog I know I know it sounds like also toog. no toog bi this is like an okay. Um, I don't know. <coughs> let's go. kaay uh, nu <coughs> nu dem. nu dem nu dem nu <laughs> dem. I think there is a song, right? Uh-huh. Yeah, you can you can even dance. Senegalese ah! and show them your. No, no, no. <laughs> <laughs> No. <laughs> No, no, no. Okay. Um, what other quizzes do you have for me? Um, <clears throat> naka uh, naka bés bi naka bés bi naka bés bi tey uh, lan nga def lan ci suba ak léegi bi nga yeewoo ak léegi lan nga def. Uh, hmm. raas na. raxas. raxas sangu sangu na. ah sangu nga. sangu na. ak lan. sangu na togg na. wax na sama xarit. def naa café. ah naan nga café. naan naa café waaw. loo naan café Touba. non café Éthiopie. café Éthiopie. Mhm. am nga café Touba. waaw am naa café Touba. di naan café Touba. waaw. sa tur Sénégal sa tur sénégalais euh, nan la. ah. noo tuddee sa bopp Sénégal dégg naa Sénégal yow am nga tur Sénégal yow Sénégal tuddoo fa me tuddoo Metsi xeet. Uh-huh. da sa tur noo tudd Sénégal. man. Hmm. <laughs> mam jaara laa tudd. <laughs> ku loo tuddee mam jaara. Baye Fall benn Baye Fall Ntuba Ntuba. <laughs> nga dem Touba benn Baye Fall. man man am na xarit Baye Fall. ah da nga sa xarit Baye moo la mam jaara. waaw. Ah, yow kon yow yow murit nga. man. Hmm. Mm. <laughs> parce que parce que euh, waa Touba ñoom ay murit lañu yow murit nga bu fekkee maam kon yow murit nga. Mm. incha ah. kon kon yow nekkul man man man yaafal. ah yaafal. <laughs> Ah, waaw. mais est-ce que xam jij de Sarintuba? eh yaa ngi xam lu bëri nga naan ataay. waaw. lay naan premier deuxième wala troisième. le deux deuxième. deuxième deuxième c'est wolof. c'est French. waaw mais lañuy wax mais ñaareel ci concept wolof duñ ko tuddee ñaareel ci ataay deuxième lañuy wax deuxième. deuxième. Mm. Um, I don't know how you say it. It's strong. sometimes. yeah uh, ban ban lekk moo la gën a neex Sénégal. ceebu jaan. ceebu jën. Mm-hmm. mën nga togg ceebu jën. waaw xam naa wax ma ni wax ma tuuti nag. léegi naa <laughs> léegi wax ma tuuti ni ñuy toggee ceebu jën. tey boo doon togg ceebu jën nooy toggee ceebu jën. Uh, oh, it's so difficult for me to explain in Wolof, but I try. Mm-hmm. am naa cob waaw am naa carotte waaw am naa jën am naa tomate si if it's uh, cobu jën am uh, <laughs> eh, naa tomate suul suul kaani <laughs> kaani piima piima kaani kaani kaani ka <laughs> um, ak ak um, ndox. Ah, ndox oh, yow tamit ndox ah, ngay wax. looy fàtte li ngay wax ma uh-huh. ko envoie ma ça. fàtte la bool. no there is something you ask my mom always to send it for to send it to. soul. no it's not soul it's the other black stuff you put uh, when you cook. No. And yesterday you were talking about it. I thought with was... yesterday you were talking no, about No, I thought soon. Yeah, soon. Ak Bisab, Bisab, I'm not, I'm not Bisab. <laughs> Hey, Bisab. <laughs> Bisab. À côté. Uh-huh. Li Mambi. Uh, Nokos. Waaw, ah, Nokos, Nokos, Nokos. Nokos. Nokos, Naka nga yeewoo today? Naka nga... Naka nga yeewoo. Yeewoo. Mm -hmm. Yay, Uh, how was maybe how was your day today? Nakanga yewo. Mungido. Mungido always works. so dem nga yow foo xam ci senegal foo. xam ci senegal foo xam foo dem senegal fan nga dem ci Sénégal. dem ah, ah, fan laay dem when you going to Senegal. where you going in Senegal. where did he go. where ah, it's past tense. fan is where I know. where did he go in Senegal when you were there. ah um, dem Dakar. Dakar Dakar c'est la Euh, dëkk naa Mermoz. waaw Mermoz ak fan. ak fan. Ah, dem nga Kédougou. oh oh waaw waaw dem naa Kédougou dem naa ah, Touba dem naa Touba Jalaaw. Uh-huh. dem naa uh-huh. Uh-huh. Eh, ok. Yeah, that's the one. Okay. So the question I have, see, I'm gonna I'm gonna ask you the question in English, and then you can try to explain to people in what I meaning that the question I'm gonna ask is like when you went when you were in Senegal, you say you went to Kédougou. So explain to the people and explain to me what you did when you were there and how Kédougou looked like. Ah, Kédougou rafet na. <laughs> That's the only word I can say. <laughs> kerigub trop rafet na rafet na mm. am ah, na como oh no I don't think I don't know how to say waterfall in Wolof do you even know how to say waterfall in Wolof ah it's ah, so easy parce que yow xamul Wolof tubaab la xam naa Wolof xam naa Wolof tubaab la ah damay wax ak français moo tax France dama doon mixé français ak wolof. non non non. She. Yes, Co continue. No, yeah, uh, that's a hard one. Okay. Um, I heard about when you were in Senegal, you know how to talk with your taxi driver. So I just want you to explain to people how, how you did and then how you find a way to doing it and how you talk to them. Comment on fait, on yeah, fait wahale. Yeah. Salaam alaikum. No, you Before you say that, you're gonna say, "Hey, taxi, because you. Think You asked me how I do it, oh, right? Oh, oh. You wanna be the taxi driver? Taxi. Uh-huh. <laughs> Salaam alaikum. Uh-huh. Respond. Maaleykum salaam. <laughs> um. Fooy dem. maa ngi dem uh, central ville. central ville. mille mille francs baax na. deux mille cinq ah deux mille cinq cents c'est cher. tamit naa dafa cher ah dafa cher dafa cher. ko dafa cher ma wàññi ko. waaw ñaata. 1000F baax na. ah 1000F dafa tuuti. non non. ñu dem nañ dem nañ dem sant bi foo jàngee waxaale. dañuy waxaale. waaw ah mais yow ndoroo Éthiopie man. non Éthiopie. Éthiopie. yow pël ngay nduróol de pël Sénégal. ah yow pël Fuuta ngay man éthiopienne la yëpp. éthiopienne. waaw. xam nga xam Fulani people. Fulani Sénégal xam na yow ñoom ngay nduróol. yow pël ngay nduróol pël. man éthiopienne la éthiopienne bu jàng waxaale. waaw ku la jàngal ku la jàngal wolof am na am na ku la jàngal wolof. ku la jàngal wolof. ku la jàngal wolof ci ah, ci école. ah seen école. waaw macha allah macha dem nga dem nga. Mm, ah, restaurant senegal Sénégal mos nga dem restaurant. waaw. Euh, ban restaurant nga dem. Hmm, I forgot the names. Oh, you the name? No, that's fine. Okay. So, yeah. yow xam nga suñu waa suñu waa yeah man sama waa sama papa sama yaay suñu xam nga ñëpp. waaw xam na. <coughs> Um, xam na sa yaay xam na. xam naa sa baay. Mm-hmm. Ah, bu jigéen. Eh, suñu ko am góor de bu ak bu jigéen. dama lay wax rek am góor trying to say anything else. I, ah, chicken and gore. Yes. That's it. Boo. Yeah. Okay. why <laughs> okay. Okay. Let's continue. Uh Okay. So, kan nga xam suñu kër? Uh, I don't know how to say last year. so who do you know? Oh wait, family? Say it slowly. Kan. Kan nga xam suñu kër. Oh, kan nga. Okay, the verb is ham here. Ham hmm. na. Okay. Kan. Kan nga ham suñu kër. Wow. I just told you who I know. na nga sama waajur bu rek sama waajur bu jigéen mais am naa mag am naa rek. waaw c'est ça xam nga samay rek. Uh-huh. xam nga samay mag. waaw. comment si comment foofu. Mame Saye. Mame Saye lan la Saye lan la góor jigéen la. jigéen la. non ah, góor la <laughs> <laughs> Mame Saye that's a mistake. Hmm. Hmm. ak kan. ak quoi. Hmm. no I don't want to say their names. yeah but ak kan. mën nga you can say. your younger sisters, your. Or, no, Jane, uh, I thought that. Uh, ak uh, uh, Bugur. No, so so waju bugur ak so waju bu jigen. Wow. When that's when you say waju bugur, waju that's mad. Uh-huh. But I'm talking about your siblings. yeah my sibling is you you you am uh, na rakk yu góor am na rakk yu jigéen. waaw am na rakk yu góor am na rakk yu jigéen. Oh. ah ok yeah whatever he said. nga xarit mooy maam seer. waaw. Uh, mooy sa gaynde mooy sa bés gaynde mooy sa bés xarit. ngeen mm-hmm. ànd dem géej sangu géej <laughs> ah naan ataaya. Mm-hmm. ok. mais dégg naa yow am nga euh, benn xarit bu tudd Mimi Sénégal. <laughs> ni ma miiri tàggaw Mimi. waaw kan mooy Mimi. <laughs> Mimi sama moto <laughs> man am naa moto si euh, sa suñu kër. Mm-hmm. am naa moto suñu kër euh, Mimi laa tudd. Mimi la tudd. Mimi la tudd. mimi léegi mimi léegi xanaa màgg na léegi. mimi léegi am mimi am na doom. waaw mimi am na am na am na euh, ñaari doom. waaw ah, na baax na baax na tey euh, waaw tey bu guddee di nga togg ataay. toggul dara. doo togg dara. yow ba euh, ah. Come on, Dave. da nga fàtte. yow da ngay da ngay def ataaya. kan mooy def ataaya. yow. lu tax. ak ak sucre. lu tax. lu tax. lu tax lu tax. lu tax. lu tax man ma war a def ataaya pour yow today. You're not going to make ataaya for me? What? No, my question is uh, why I have to make ataaya for you. chez vous euh, Saka. Hmm. góor laa kii kii ba def ataaya. góor. ku la ku uh-huh. <laughs> waaw. mais ku la wax loolu tooñ mm-hmm. jigéen mooy togg ataaya. pour déedéet pour jëkkëram. c'est pas vrai. lan mooy jëkkër lan mooy jëkkër. lan mooy jëkkër. lan what does husband do? Lori what? No, what what the meaning of jacket? Jacket, husband. Husband. So, lady as a wife, as a wife, what the tradition, Senegalese tradition, make the woman do for the husband? Mama. Okay. Man Ethiopian. <laughs> Okay. Why would I know what a Senegalese woman will do for her husband? I'm not Senegalese. Okay. I got do for their wife. Okay. Mm-hmm. Okay. Dégg na. Oh, <laughs> <laughs> <laughs> uh, I don't have no more question. So I think you passed the test for now. okay. guys. Pare Mm-hmm. <laughs> That's it for today. Um, I hope you guys enjoyed this video. Um, I'm honestly actually kind of excited we got to make this video yeah. because uh, it took a lot of convincing to get my husband to do it. Um, so I'm glad he got he got to do it. He was a little reluctant because of his hair. Um, you know, as you know that we are all staying in and um, he didn't feel comfortable anyway to go to the barber, but I had to convince him it's okay, even if it's his first time. Um, so it's okay. This is the new us. Even my braids. I got these done in Ethiopia and I was hoping to rock it and I didn't go anywhere. Okay. It's kind of old, but I don't care. I'm not taking it off. <laughs> <laughs> no, honestly, like, uh, it's like sometimes, you know, it is what it is. There's nothing you can do. But um, uh, we're excited we got to do this video. And um, I hope you enjoyed. Again, thank you for watching. If you like it, give us a thumbs up. If you have more ideas for next video, leave us a comment. And don't forget to subscribe. jaajëf gars yi seetaan vidéo bi ngeen xam nga. ok xam nga bàyyi Fall ma quoi xam nga. bisous. bye bye. bye bye.